asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Gambia nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV Aïcha mu leen teewalaat si biir kër bi seen programme bi looy yëngu maanaam business profile ma am gan si biir plateau bi bu ko waxtaan ak moom mu wax ñu moom mooy kan laataa ñuy dugg si waxtaan bi asalaamaaleykum nuyu naa la. waaleykum salaam wa rahmatullah fay naa la. Euh, thank you so much si euh, uyusu bi nga ñëw def ñun waa sa Sahel Network TV léegi dama lay bàyyi rek ngeen nuyu gars yi wax leen yow yaay Assalamualaikum wa rahmatullah askan wi ñëw seetaan di ñu déglu fi uh, ci Sahel uh, TV man la Aliou Badara Daboy Sambu man maay président Gambia Sickle Cell Association ba uh, pare di um, communication and flow manager Gaynjoro Skills Academy ba pare social activist ma also phone what um, Facebook group called Proud to be Gambian Ma ngi launch one million face mask campaign. waaw ci gàttal. macha allah Aliou yow gis naa ne jàmbaar nga de loolu yow yaa ngi cee yëngu. jërëjëf am na solo euh, sa liggéey lan nga ñëw mën a wax ci wàllum social activiste. waaw social activiste maanaam koo xam ne day yëngu ci li nga xam ne lépp mooy loo lépp loo xam ne mooy defar société bi maanaam damay yëngu ci lépp loo xam ne dañoo yee askan wi di dimbale askan ci lépp loo xam ne soxla nañ ko ci wàllum xam-xam wàllum wér-gu-yaram ak lu mun di doon loo xam ne government mu ko def te mënut a egg loxo mun faa egga ñun social activiste yi ñun ñoo ko dee yeggali li nga xam ne tamit mu ngi ci société bi te government nit koo xam mhm. ñun tam ñoo lañ koy yeggali mhm. daanaka ñun ñoo nekk diggante government ak nit ñi mhm. loolu nekk kan lo am solo waaye balaa ñuy jëkkale waxtaan bi dama bëgg nga wàccee max bi nit ñi mën a gis kanam bi ñu xam kan may Alieu. waaw amul problème naa ko wàccee seconde rek parce que si jamono kuréel la nekk. yaa sure so léegi comme que wax nga ne yéen a ngeen def max for all. so lii lan nga ñu mën wax si wàllu max bi. waaw max for all bi nag campaign bi man maa ko start like um, two weeks ago. because dama bi pandemic bi duggee fii ci Gambie fii ci laa def ay gestu. Uh, gestu yu bari sax uh, di seet um, yan mesures la yeneen dëkk di def pour mun a contrôle uh, coronavirus bi mm-hmm. léegi bi ma defee gëstu yooyu ma gis ne am na ay dëkk yoo xam ne biñ euh, ñoom masque lañ doon use maanaam ay euh, China def nañ ko North Korea euh, Czech Republic foofu laa gën a amee inspiration bi bi ma seetaanee gis ne ñoom soo gisee coronavirus bi amu fa doole comme ni mu amee Amérique comme ñu ko déggee ci gàttal rek ñoom dañ jëloon masque parce que gis nañ ne masque mooy mooy de best measure pour mun a stop virus bi mhm. parce que li mu mun a def daanaka raxas loxo mun na ko waaye looloo ci ëpp doole parce que tey soo xoolee ñun suñ société niñ dëkkee euh, nit mun naa tisoler at any mm-hmm. nit mun naa saxaat at any parce que yooyu doo ko dee mun a contrôle mm-hmm. moo tax ñoom biñ gisee ne masque bi bi soo biñ ko commencé sol gis nañ ne ñi nga xam ne am nañ feebar bi munuñ koo wàlla ñeneen di ko euh, soo tisoolee dafaa des si masque bi mm-hmm. ba pare soo saxaatee tamit dafaa des si masque bi soo ñu def ko yi nga xam ne dëkk bi képp ku génn rek da nga war a sol masque su dul loolu duñ la alaam nga génn even si yi sax da gis ne nit ñi dañ doon sol masque pour protéger seen bopp parce que su fekkee ne am nga symptôme si soo solee masque den ki nekk ak doo ko mun a wàll. waaw wala léegi naka ngeen nekkee di dimbalee nit ñi si wàllu masque bi ak naka la ko nit ñi di mun a jotee tamit. waaw man ah, li initiative la rek comme yéene bu rafet la rek parce que dama xam ne government mënuñoo def yëpp te ñu tëjee booda si. xam naa ne pour oto masque dafa dafa métti because masque fi ñu ko di jëlee dañ ko di jëlee yoo xam ne du Gambie ñun ko duñ ko defaree fii hmm. so man bi ma toogee rek ma gëstu ma ne waa ok comme que ñii def nañ ko ah, te fii bari na ay ñawkat yëpp ay boutique yi ñawkat lañ hmm. ma ne ñawkat yi dañ dee ñaw te dañ dee desal ay piis léegi su fekkee ñawkat bu nekk jël nga sa ndesiti piis yooyu nga defar ko masque jokk sa dëkkandoor hmm. wala ñu boole ko yëpp suñu amee one million masque ñu jox ko government bi den government bi mun na koo distribute ah, soo demee ci marché xam ne ñu ngi si marché bi ñiy dem si marché yi tamit jox leen ko mm-hmm. so loolu mooy woon initiative waaye ñun suñu boppam nekku ne dañ ko defar fu mu nekkal dafa am de initiative rek pour indi mm-hmm. ah Gambien si together su fekkee mun nañoo dajale mm-hmm. ñu defar one million masque ku nekk soo mun a ñaw ñii am piis ñii am xaalis ñii am élastique ñu boole ko suñ ko ñëwee dañ ñu supply ko government as a complement ñun loolu lañ bëgg doxalee léegi euh, mu da nga am youth yoo xamante ne ñoom ñoo féetoo wàllum ñaw bi wala da nga bëgg a ñawkate si boppam ngeen jàppalante pour xeex jàngoro bi di ah, coronavirus waaw am na ñu maa liggéeyal nag am na young entrepreneurs yoo xam ne ay fashion designers lañ mm-hmm. ah, parce que bi ñëwee suma maan ñu laa njëkk a xalaat contact naa leen am nañ whatsapp groupe boo xam ne foofu lañ dee koo mm-hmm. waaye man suma éene mooy Gambien si yëpp jot si parce que ah. lii ñun ñëpp suñu warugal la mm-hmm. parce que suñ ñëwee am mbas moo xam ne dafa dugg ci réew mi te ñu war koo xeex den warugalu ñëpp la kon man bàyyiwuma kenn dégg la am na ñoo xam ne ñoom laa njëkk xalaat te ñoom laa am seen contact ñu laa am access to so ñooñu ñu ngi liggéey uh, fu mu nekk nii am nañ whatsapp groupe dañ lay communiquer suñ amee ku bëgg a donné dañ la dee dinañ dinañ la boole si groupe bi wala soo donné te nañ ko fa dugal mm-hmm. wane ne diw joxe na nàngam mm-hmm. so ñu daal ñooy nekk supervisor si for now waaye man ma kenn gannaaw maa ngi invite Gambians yëpp waaye mun du nekk rek anybody ko xam ne mën nga ko defar rek you waaw ba pare tamit yaa ngi doon wax si wàllum sickle cell. Mhm. léegi lan nga ñëw mun a wax si wàllum euh, feebar boobu noonu naka la ngeen dee dundee ak sickle cell pare naka la leen góor bi war a dimbale yéen nga xam ne yéen a ko nekk di dunda. waaw sickle cell sickle cell feebar la boo xam ne ah, feebar yu doono la. Euh, loolu bëgg naa mu leer tuuti parce que loolu moo gën a tax ma ñëw fii sickle cell feebar boo xam ne feebar doono la da ko dee doona si sa waajur mm-hmm. benn sa ñaari waajur yi su fekkee kenn kenn dafa am euh, disease bi itself mm-hmm. wala mu nekk ne sa ñaari waajur dañ am trait trait bi mooy doomi jàngoro si ñaari waajur su fekkee am nañ trait dañ doom yi mm-hmm. dañoo am di disease waaye su fekkee ne kenn moo ko am xëy na euh, doom yi kenn dafa am trait waa du am disease waaye su fekkee ne tamit am na doom boo xam ne dafa jël si waajuram boobu lu bari si deret den kooku mun naa am di disease itself so loolu la ma maanaam nekkul feebar boo xam ne da nga koo mun a waala nit mm-hmm. comme yeneen feebar yi STD bii non communicable disease la mooy nekk mooy feebar yoo xam ne doo ko mun a waala through contact mm-hmm. unless nga inherit ko mm-hmm. comme ni ñoo gisee diabetes bi ak asthma yeeg yeneen yooyu da nga ko di inherit si genes la nekka so loolu mooy sickle cell ah, sickle cell nag feebar bu métti la waaw feebar bu métti la ah, dafa ànd ak ay stigma ah, ànd ak coono ànd ak méttit Ah, feebar bu bu doy waar la waaye nag man li ma def rek ñun ay jàmbaar la ñun ay warrior lañ parce que soo judoo nekk sickle cell patient from bad till bés bi nga gaañu ah, daf dee métti trop parce que sickle cell nekk na feebar boo xam ne amut faj amut faj waaye all you can do mooy manage ko soo ko xamee nag di nga mun di nga ko mun a manage di nga mun a dugg ak eh, dund ak moom lu mhm. yàgga te du la disturb waaw soo loolu loolu <coughs> lu moo ma fa nekk mhm. waaye amut garab am na garab yoo xam ne mun naa kaam sa crisis crisis mooy euh, maanaam su la daanelee crisis épisode mooy su la daaneele métit yi ngay am ñii dañ cee am ay yax yu métti ñii am bopp yu métti ñii am biir yu métti ñii am dënn yu métti ñii am problème yu nokki euh, ñeneen ñi da ngaa gis ne seen deret bi daf dee wàññeeku toujours almost daanaka sickle cell patients yëpp seen deret daf dee faral di wàññeeku toujours mm-hmm. maanaam anémique so yooyu yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne moom lañ dee dunda so nekkul feebar bu yomba daal feebar bu métti la waaye nag macha allah sant yàlla léegi comme ñun dunda nañ ko ba ñëw to this age ah. Ah, parce que soo ko amee stigma bi on the side of the stigma mooy soo ko amee liñ la dee la mooy Gambie fii before dañ la dee gomloo ne soo amee sickle cell rek five years di nga dee or fifteen years di nga dee or seven di nga dee so loolu stigma boobu daf la dee traumatise mm-hmm. su fekkee xale nga mun na laa damage sa life ba yow doo am courage sa life mm-hmm. day ragal bi ko da nga ne ah man léegi ma dee so da nga di discourage totally waaye sant yàlla ñun bi ñu tegee over ah, dem nañ ci télé yu bari ak rajo yu bari pour wan askan wi ne fi ngeen ko foggé ak ni ngeen ko foggé du non waaw parce que man gis na ñu am sickle cell ñu ngi dund 100 years mm-hmm. ñu ngi dund 95 years man car ma sha allah ah, santa yalla yal nañ yàlla xeeb dooli den mm-hmm. ah, lolu wecc na lu bari ci society bi parce que soko amane dañ la dan stigmatize even school uh-huh. sax da nga gis ñu nan la xay kii xiiboon la ki nangam nangam mm-hmm. yoyu daf di damage nit so loolu mooy the greatest war boo xam ne moom nga dee njëkk a fight as a as a child waaye soo demee ba grow ba xam ah, yow yaay kan ba xam li nga amee mooy lan daf dee easy pour nekk ak nekk ak moom parce man fu nekk nii dama dee dem ma dee gom su ma ko waxee dañ dee ree ah yow xam <laughs> waaw waaye loolu soo gisee tamit ñu ko wax parce que WHO ah, dañ joxe report ñu ne every year three hundred thousand babies are born with sickle cell out of that 300000 100000 yëpp they die before the age of five so hmm. obviously loolu tax nit ñi dee wax loolu but ah. generally li ma dee wax rek soo gisee loolu yëpp di happen mooy lack of awareness hmm. because su fekkee am nga parent boo xam ne xam na ne feebar bi nga am teel nañ ko gàttandu then obviously mun ngaa dund more than five years hmm. waaye lack of awareness moo waral loolu parce que nit ki su fekkee yaa ngi xeex loo xamut danga di am problème du gaaw doo ko mun a faj feebar boo xam ne xamuloo lan la doo ko gaaw a faj mm-hmm. comme man for exemple rek bi ma nekkee xale bala ñoo xam ne sickle cell laa am dama sonn mm-hmm. dem nañ ci façon sëriñ bu nekk ñii ne dama am rab ñii ne jine laa ñii ne lii ah su may sonn na mm-hmm. waaw waaye sant yàlla bi mu demee bañ discover ne sickle cell laa am mu commencé di ma yóbbu lopitaan may dem ah, di jël jëli garab always ma tajee ay docteur yoo xam ne dañ ma ne advice lan laa war a def ma ne nga xale boo xam ne dama teel a smart nag car mhm. ah, dama doon follow docteur si li ñu ma doon wax loolu dimbali na ma ba de this level Euh, léegi yow as a social activist lan nga mun a xelal youth si nga xamante ne ñu ngi laa seetaan ñu ngi laa déglu balaa parce que time bi xoj nañu balaa ñuy tàggatoo. waaw li ma wax rek mooy youth si nañ try ñu keep the WHO measures for now because ñu ngi si pandemic ñu ngi si uh, uh, time yi um, coronavirus. coronavirus nekk na feebar boo xam ne feebar bu garaaw la amagut faj dégg la ñu ngi ko manage ñu ngi fajangum tuuti tuuti waaye nekk na feebar bu garaaw te Gambie nekk na nekk ñu nekk nañ nit ñoo xam ne ñun dëgër bopp lañ. Mm-hmm. xoolee ñu ne Sénégal benn lañ suñ attitude benn suñ mhm. culture benn lañ social distancing we are not respecting mhm. uh, hand washing we are not respecting mhm. face mask ñun dafa mel ni dañ li ñoo wax rek li ñu dee wax rek si société mooy naan politique la dañu wut xaalis waaye du politique it's real so nit ñi nañ teg nañ take these measures seriously pour ñu protect suñ bopp parce que ñun Gambia we are very vulnerable parce que suñ économie bi uh, strongul suñ healthcare sector bi strongul so su fekkee ne mun na protect suñu bopp mun nañoo dimbale suñu bopp dimbale suñu réew dimbale suñu askan bi nga xam ne li am ci yeneen dëkk yi du fi ñëw so na ñëpp keep the measures nañ try tamit ñu ut masque mhm. mooy the most preventive measure it can protect uh, the disease from spreading 100 percent mhm. Wow, thank you so much uh, Aliou Badara Davlo Samb lañ fi amoon thank you so much Aliou li nga wax ne yeete na te ku si déglu tamit dina si jàngalu so much Eh, ma bàyyi la rek yow tamit nga tagato su ko defé ñu joxé wa dig dajé ba beneen édition ni looy yëngu. waaw jërëjëf Aïssa kontaan na trop di kontaan ci wa Sahel eh, Media eh, si invitation biñ ma invite ni démb lañ mako wax den mané dina ñëw because dama gis né I have a responsibility. comme ma ngi star lu melni nii ba pare maa ngi represent askan bi den warna mu ñëw toog fi pour wax. Mm-hmm. ma ngi leena gërëm di leen sante si initiative bu baax ba paré di leen ñaanal jamm thank you so much bye bye.